Pathé Mbodj euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi nga nekk euh, journaliste écrivain euh, analyse euh, politique euh, déjà ma lay laaj naka nga analyser euh, sortie bu Fadilou Keïta DG bu caisse des dépôts et bi dal ci kaw opposant yi comme rek Waly Diouf Bodian na ko defee woon wax ni ñoom mënuñu gouverner contre en faisant face à des opposants milliardaires. ma ne daf ñuy delloo si Abdou Diouf bi muy taxawal benn kuréel bu ñu tuddee crise ñu ni ku fekkoon ni jëloon na xaalis na ko delloo daf ñuy delloo tamit si Abdoulaye Wade bi mu ñëwee ni am na ñu yore xaalis nga xam na ni bari nañu doole te buñ leen euh, xëccul dinañu indi tolof tolof ba Idrissa defaral ko affaire transhumance mooy ñëw daw daf dafa ñu yóbbu tamit si Macky Sall bi mu egsee te ni am na ñoo xam ne ni dinaa leen duma mais nu mu leen di duma mooy mbirum xaalis ku si mel ni Karim Wade wala ku si mel ni Khalifa Sall dafa mel ni daal ku toog rek tam ñeneen ñi dëmm ndax amuloo foo jëm xamuloo foo jëm am lool teg ci loxo niñu lu dul bu ma mënul Macky Sall moo tax bu ma mënul Ablaye Wade moo tax bu ñu mënul euh, Abdou Diouf moo tax lépp lu ñu defoon nañ ko xeex bu ngeen bëggee ñu mën a boof bu baax loolu mooy seen politique politique waaye politique boobu du du kii xam nga ki nga tudde noonu yaa ji noonu la nekkee woon moo yore woon ku ñëw ñu la loo am. Hmm. loo yor. Hmm. booy génn loo am loo yor. boo bo mais boo sotee ni njaboot googu moo fi nekk ba tey. Hmm. di wax ah bu fe boo seetloo ministère bi ñuy wax bu ministère El ñu gëstu tuuti seet ñi fa indi bu mu fa ñëwee léegi ñan la boo demee ministère di commerce ga gëstu tuuti nga seet ñi mu indi ñan la. boo seetee ministère de affaires étrangères nga seet kan mooy euh, euh, Yassine Fall kan mooy jëkër kan mooy doomam loolu mooy yaakaar naa euh, yóbbu alalu réew mi te ni yaa liggéey ndax boo jëlee njaboot boo jëlee sa dëkk boo jëlee ñu fa nekk ñëpp indi leen daje leen day mel ni bi ñuy wut aide municipal militant dugal leen car rapide fay car bi yóbbu place de l'indépendance ñu toog foofu ñu dem jëli xaalis bi nga ñëw nga séddoo ko ak ñoom booy euh, yuuxu sàcc day fekk yow nga xam nga taxaw boo xam ne taxawaay boo xam ne kenn mënu ni la li ngay jël yow sa soxna sa doom sa mbindaar sa xar sa muus sa xaj ku nekk ñu fay la nga jël xaalis boobu sa bopp ba pare naan ñi ñu sàcc nañu bon ñii tamit kon ñu ngi commencé sàcc. Euh, beneen aussi laaj bu am solo mooy tweet bu Pape Alé Niang bi journaliste DG bu RTS moom nee na autorité yu bees yi nañu wax askan wi dëgg euh, nanga gisee loolu jóge si Pape Alé Niang. waaw xam nga Pape Alé moom mooy Pape Alé la moom mu nekk si biir rek mu bañ a eh, soow mi am na lu si ñuul am na lu si ñuul. xam nga toog ni kenn dootul dem mbëkk euh, boo toogee ni kenn dootul jéggaani lu ñu lekk boo toogee ni lii ak laa te fi nga toog yow si sa bopp wóorul te mu wóor la ni li ngay wax euh, amul te ñi koy wax tamit xam ne li ngay wax amul naxe mbaay boo xam ne nii euh, bu ñu dee ci cëppaandaw ga tamit li fi jëlee li fi jëlee Abdoulaye Wade li fi jëlee Eh, Macky Sall moo leen fi jël ndax eh, boo toppee ndaxe mbaay ndaxe mbaay boo ko seetloo lu yàgg ma nga xam ne ni politique boobu taxawul bu ni leen fi mu nekk nii kenn mënul wax ni liggéey jëpp dinañ ko am mu ni leen fi ñu nekk ni kenn mënul wax ni bëkk ni dootul am mu nu leen kenn mënatul wax tey jii dootuñu ñu jéggaane lu lekk ndax mënuñu ko kii bu fekkee ni toog nañ suñu biir ñu waxtaan suñu biir def naa bu ñu leen waxee dëgg xëy na dina mën a nangu tolof tolof ñu jànkonteel ñu jéem ko seet suñu biir naka lañ ko mën a waxtaanee pencoo ko te ba na paacoo réew mi naa loolu leen maam maam euh, papaay loolu mooy li taxaw bu bu ci génnee tamit bu suba bu ëllëgee dina ko mhm. beneen mbir euh, coow bi nga xam ni moo am ci ci nomination heure bu euh, euh, président Diomaye defee ay nomination gis nga ni coow li dafay baax fi ñu toll nii nag nit yi ñu ngi coow maanaam dañuy fal ministre fam fal ay famille comme kaaw Yacine Fall ak doom bu jigéen bi dégg nga kaaw sëriñ Gueye Malick Ndiaye ñeneen ak yeneen ban jàngat nga am ci mbir moomu xam nga bu fekkee ni fal kenn moo ko moom bu jomaay loolu la ko sartu réew mi may xëy na li ñu séntu woon moo amul moo tax ñuy wax li ñuy wax waaye eh, bu fekkee ni dañuy fal ñu seet koo xamee ni yelloo na ko mën na ko te eh, eh, xam-xamam may na ñu fal ko amul kii waaye bu ñu falee papa fal yaay fal doom nga dem fale nga gis ku mel ni Malick Ndiaye wala nga gis euh, Guèye so xaw ma na xam nga tuddee ministère du commerce ni ko waa dëkk ba yëpp ñibbi si nañu Dakar waa dëkk ba yëpp ñu nga sa ministère bi bon dafa naa bu dul si yoon sax xel moo mun a nangu loolu te xel mu lu du ko nangu ci rax dolli dafa fekkoon li ñu séntu woon si jomaay si jomaay waxuñu Sonko xëy na Sonko mun na ko mais xëy na jomaay eh, yaakaaroon ni gën na fen di loolu bu mën a euh, moytu yenn yi mm-hmm. mais jël papa jël yaay jël doom jël mbindaan bi jël euh, xaj bi jël xar bi dugal leen ministère véritablement Sénégal daal def Sénégal Mm-hmm. Euh, est-ce que mën nañu wax euh, tuddee loolu népotisme euh, Pathé Mbodj est-ce que mën nañu wax ni li ñu doon reprocher Macky Sall moom la ñuy def parce que daan nañ fi dégg ñu naan dynastie Faye Sall. waaw non xam nga loolu li muy wane rek ak betteel bi ñu si am mooy xëy na li ñu séntu woon lu noonu. ba pare xëy aussi <laughs> am nañu ay gàllankoor xam nga il faut ñu jéem a seetaat suñu bopp si biir si biir euh, société bi si biir askan si biir mbootaay ñu seet naka la ñuy def buñ la falee sa papa sa yaay sa tante sa nijaay sa la la tantina de Borgo dafa am benn wooy bi ñu doon wax la tantina de Borgo le padre la madre les cousins les cousines bu yeeg xar yeeg min tànk yeeg ñëpp nga bëgg a de man maa falu rek il faut ma mën ko li ma daal ñu jéem a set naka la ñuy def suñu suñu askan bi daal lan moo ñu mën teg loolu. Mm-hmm. war nañ ko mën a euh, jëm si waxtaan daal ñu set waaye daal ni mu amee ni daal ak li ñu séntu woon daal dafa wuute ba nga xamee ni euh, xëy na euh, dana bare ñu bare ñu bare ñoo xamee dina mer te mer du jar ko loolu xëy na loolu tam loolu lañ Pape Alé doon di xamal léegi. Hmm. ñu xoddeeku balaa ñuy lakkale. balaa ñuy lakkale euh, gouvernement su mel ni dafa miser ci wàllum euh, mbay pour euh, xeex chômage des jeunes ba lancer ay activités agricole un peu partout est-ce que jàpp nga ni pari bi lu Diomaye di réussir la wala. est-ce que loolu gulet la boo gisee coow li fi am ñëpp ay affaire Prodac fii. ay vacances citoyennes fee eh, def nañ ko ñaar fukki at yi ñu weesu yëpp taxul ñu ministre bi ministre boobu li leen ko dig moom si boppam Macky Sall <laughs> moo ko créé eh, est-ce que boobu temps fexe woon na mbir mi sotti waaw ba après li ñuy bay lan la aussi li ñuy bay loo xam ne duñ ko jéggaani te muy dund du ceeb du blé du farine du diwlin eh, du suukar ñu ngi ak benn société fii ba depuis cinquante ans moom rek moo fi am suukar dégg nga boo jàngee journal tey ñun la suukar si léegi il ñu ubbi marché bi ndax ñu mën a am suukar soixante di pour cent pendant cinquante ans mënuñu ko matal nga ni eh, léegi dootoo jéggaan yi di suukar bitim réew bon xam nga ay waxu xasaw xasaw la saret daal hmm. Euh, beneen laaj aussi euh, fu ñuy mujjee di taxawaayu Guy Marius Sagna ca euh, parlement bu CEDEAO naka nga gisee la mu fa yëkkati. <laughs> li mu fa yëkkati tamit li mu fa daj. mburu daju ko mburu xam ko si buur <laughs> ndax mooy li mu li ko mu daloon li ko daloon rek dañu koy wane ñëw taxaw si assemblée ba xotti sa bulletin de vote dugal ko si boîte bi ba pare da nga yenn boîte bi gendarmerie yenn la torof torof nga nga nekk si torof torof nga loolu ngóora la du ngóora ngóora mooy mu wax euh, naka la euh, lu xaw euh, Palestine te kenn mënu ci dara ngóora mooy nga topp naan réew mi warul dem France warul dem Amérique nga tëj réew mi ndi bu kenn jënd bu kenn jéggaani dara bés bu ñu mënee tëju juróomi at mandat du ñu jéggaani dara du ceeb du diwlin du xaalis parce que yaa ngi wax na ko avant ñuy euh, def élection yi boo gisee euh, réew bitim réew ni mu teewee ci senegal da ngay rus bu ñu inauguré euh, bureau sax statistique ñu woo la femme de de l'Union européenne bu ñuy dem douche ñu woo leen ñu indi lu ndox ah bu ñuy dem àll ñu woo leen ñu indi lu ndox mënuñu def dara bés bés boo liiree soleil da ngay ruus milliard de milliard de milliard de amul benn milliard bu génn fii lépp benn million lañ koy jëlee naka ngay jëlee yëpp bitim réew ba pare ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité bi. di la remercier ci may fàttali ni Pathé Mbodj taskatu xabaar nga écrivain nekk analyste politique jërëjëf.